en tant que ñaari artistes su fekkee sax euh, diggante papa ak doom la. mais ça doit être artiste mais pourquoi pas staff yi. waaw non kañ waxtaan tuuti rek Aba. le premier premier janvier bi ma waroon dem. Mhm. dama loué bus. ne sa musicien bu kenn dem fenn. Mhm. dañuy dem Bali Youssou Ndour. Mhm. woote jënd leen may ticket. li may wax am na wala dëgg la. woo boobu ñu kale. ma woo ci guddi nga naan ma xaar je te la xaar ma Omar je te rappelle ba une heure et demie. a dem nag waaye ba une heure et kenn waxu la fi nga jëm ak nu muy demee mais dama dama tëdd ne la. mën nañu ko mën ko defaraat d' accord mais léegi après am na yeneen ak yeneen yuy ñëw t'inquiète même pas. en tout cas bëgg nañ daal euh, gis mu demee mu daan demee waaye waali di wayaat Birane Ndour sama mag yi sama xarit bi o oh, Birane xam nga yooyu dafa naaj dafa neex hmm. donc Ndiagoro ak ñoom. Bouba Ndour ak équipe bi euh, woote leen ngeen toog ngeen waxtaan lii bëgg nañ di ko gisaat ci kaw seen Wally bokk ak Youssou euh, benn seen loolu ñun daf ñuy neex euh, loolu donc Wally tey bu ñu waxee ci kaw seen Wally